Bellingham. waaw man boobu. kan kan mooy sa joueur kan mooy sa joueur àdduna wër nga. non man aw ma joueur hmm. non non. non bu dee bu dee ah non bu dee bu dee loolu aw ma joueur ay joueur la noo non mënu ma li laa ilaa da nga bëgg carte da nga bëgg carte bi tas ñooñu ay sponsor lañ tamit foog ma foog ma foog ma lim leen ci landing bat yi bek landing rakku begaay te mu nekk Arabie Saoudite fee nu mu tudd Qatar landing góol la benn booy bu nekk fii nii ñoo maa moom ñoo doo kare seen ginnaaw kër yéen fi ngeen dëggoon diis si ginnaaw si côté terrain bi landing signé na moom mu ngi Qatar mook ñoom Abdou Diallo ñoo bokk championnat bi ñuy joué ak Baye Mass moom suñu fils la doomu max doo la doomu gannaaw cakana moom tamit suñu jour la ak yeneen parcelle bëri ay jour yoo xam ne tey mooy loolu ba pare am na boo yoo ñu ngi ñëw ay am godse à tout mun na signé pro ay petit waaw waaw kay gars yaa ngi fi daal bëri noonu la demee. mais ñu génn foofu ñu génn foofu Alpha Alpha fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bërëb fan moo la gën a neex Sénégal. non boo bëggee dégg dëgg de barke alxuraan fépp neex na ma mais su ma génnee parcelle damay xat. parcelle ak almadi fan moo la dàqal. parcelle bon par parcelle ak ak ak Mariste fan moo la dàqal. déggoo man parcelle laa xam Mariste da ngay dem yooyu la mat. parcelle ak Médina fu la dàqal. non foofu la Fouta te dafa rëb. boo am Sénégal parcelle non parce que parce que fii laa xam. boo doon tukki ban réew ngay dem réew bi la gën a neex Sénégal ban réew. kan man. fan moo la a neex Sénégal. non man fépp neex na ma mais man Fuuta laa dëgg rek doon tukki ban réew ngay dem réew bi la gën a neex ci àdduna bi boo doon tukki. kan man. Angleterre neex na ma trop. Angleterre waaw da ngay dem Angleterre. waaw jamono jii may wax ak yow nga liggéey tekki am alal ju bari nii nii nii nga liggéey tekki am xaalis bu bari loo ci njëkk a def. man lépp instant bii nii xam moo gën a nekk man kër kër dina xalaat waaw jënd kër waaw ngay njëkk a def waaw instant bi may xaj yow nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi benn baat boo ne lii jële leen ko fi jële ko fi loo fi jële benn baat dernier ma fi li ma li ma fiy jëlee kay bu doon am naa baat xanaa wax a gouvernement bi nañ jàppale booy jeunes yi dawal kat sareet yi maanaam jële fi chômage waaw parce que waaw parce que booy dawal kat sareet dañoo sonn te dañoo yor famille ñenn ñi dañoo am jabar ñenn ñi dañuy liggéey pour dimbali seen waajur yi boo gisee booy nay si town bi nii sax di 15 di këf saag parce que dañ leen joxul cër da ngay nekk da doon koo xaw a dëng sax sa famille ñoo lay ñëkk a beddi yaa ngi comprendre moo tax nag booy pour ñu am liñ bëgg du yomb dañuy mujjee nekk si dawalkat sareet yi wala di dawal fas te booy yu am jom ñëw si nekk di liggéey di denc yaa ngi comprendre nañ jàppale jeunesse bi nañ jàppale jeunesse bi message bi fort na ban jour moo la gën a neex ci àdduna bi nga juddoo ba tey jour bi la gën a neex ci àdduna ban jour a ah, loolu yéeme na mooy jour bi Sénégal jëlee Coupe d'Afrique waaw. waaw mooy mooy mais ñaari jour la jour boobu ak jour bi Modou Lô daanee Ama parce que loolu ay at ñu ngi ko doon bi la gën a métti ci àdduna bi nga juddoo ba tey jour bi la gën a métti ban jour. xam ne yëg nga naqar tiis ba xam ne am nga la métti. non boobu moom ci def. non xam rek. séddool rek séddool boobu jarul guddee partage. day tax say soppe xam la xam say jàddaar xam li nga dund. bi la gën a métti ci àdduna ban. bi la jar na guddee partage jarul ko a man suuf ma tàggee sama yaay. waaw waaw boobu Maroc la ma fekk. waaw ba ma demee un mois si la waaw yaa ma gën a xam waaw yooyu da lay lii mais après. am nga naqar si boobu. non ñun ay jullit lañ xam man ji ko ceddo laa mooy moom boo tax su ma nee nit ñi ceddo laa dañu ko gëm man dama dem un mois sama yaay gaañ ñu teg ci trois semaines sama jarwaar gaañ yaa ngi comprendre moo tax yooyu noon boo ko géemee nit mënu la def sax lu la sax man damay daw rek aw ma arrêt yaa ngi comprendre kay nga nekk fa cinq ans soogu ñëwaat mooy loolu. waaw te moom. nañ nañ nañ génn foofu bëgg ma laa jooyloo nañ génn foofu nañ génn foofu ñooñu ci dernière partie dernière partie mbëri nekk ca kaw mbëri téye làmb ji mbëri nekk au sommet ñu nekk ca kaw a kaw a kaw kan nga ci rêvé un jour arbitre bi génn seen diggante nga war a bëreek moom yi téye làmb ci jox yow exemple bu si mel tey genre Sa Thiès yi genre. yi. non jox ma kenn xam ne bëreeg moom dafay neex. koo xam boo koy muy bëree sax ci télé nga kii bés bu àddina si doon génn nga daan ko jël bu yomb. waaw. loolu bu yow genre Sa ay dof lañ. Sa Thiès nagu màggal lañu. yow boo ne Sa la yow tamit dof non xamul la nagu nagu màggal la. Sa Thiès waaw xamul da hmm. moom déréer rek lay gis bu arbitre sifflé nii moom mu ngi xaar pour ñu ray ko moo tax kookoo gën a neex a daan si làmb ji mais da waaw parce que dafa sañ-sañ ah, mu nekk lan moo la fa yóbbu liggéey fa mu nekk Sathiès fa liggéey liggéey ak ak lu mënta xew nag gis nga Sathiès Ama Baldé mhm. Boy Niang mhm. ay ñoom dëgg rek coobaa fi nekk nag mun nañ taxaw wax leen lu ne mhm. ñu taxaw ndax ñu naf su bakkan mais ñooñu ay jàmbaar lañu parce que fi ñu nekk ñoom seen jàmbaar moo leen fa dugal ñoom ñëwuñu taxaw taxawaay figurant rek ju leen di buux ay taxawaay acteur moo leen hmm. moo leen fa yóbbu parce que dañoo nekk ak seen seen i morom ñoom ñu góorgóorlu ba lii te ñu si bëri seen kër ñoom ñoo tax mu doon dara. dernière question dernière question Alpha soo nekk loon mbër lan ngay nekk soo nekk loon mbër joueur football ngay nekk boxeur ngay nekk basketteur ngay nekk rappeur ngay nekk waykat ngay nekk wala daal boo nekk woon mbër daal lan ngay nekk boo nekkul woon mbër. li ma bëgg a nekk su ma ko waxee après dañ dañ may ree ma ñaar laa bëgg a ne ñaar comme du ma nekkoo mbër mun naa doon fecckat fecckat waaw <laughs> non dama lay toon rek mm. su ma nekkoo mbër moom xam naa mun naa doon jour ah, waaw wala ma doon wala ma doon ñaankat sëriñ non téléwu ma nag damaa yabaate rek mais téléwu ma yow soo fi nawetaan ñu ma ma góolu kangu jàmbur encaissé trois bi ba fay di xuloog supporters yi loolu man rek maa ko def man maay mbër bi am ñaari licence ma Zarko ke soo ko fi am <laughs> am licence u am licence u yow yaa doon góolu maa doon góor vidéo bi ñu dóor ñu ay dóoru naa vidéo bu na waaw ñu dóor nii maa leen di baab xeetu baab bu ne gisoo rouge bi ma sol nii te drapeau vidéo bi rouge banaa la ñoom rek laay toog mais mais mais football ci point ah, mun a joué point mun naa góolu mën nga góolu mën nga ko de dama dama sérieux wul est-ce que xam nga ni parcelle interdit fii nii parcelle interdit xam xam man fii man 1988 89 la fi ñew sama mag mi ngi fi sëy 1988 89 mais fi man buma gissone équipe nationale ben boy bu génn parcelle unité ñu ne ñu ne mi ngi joué équipe nationale duma ma parce que unité dañu yag mëne football ah, ay terrain Indochine fii nii moo tax su ma nee Indochine kuréel mu génn na ba moy landing boy ma lay wax motax mané la xam nga nee garo gar giro giir ragal du dem géer boo bëggee bëreete amo doolé togal ñun seigne Mansour daf ñoo ñaanal dañu interdit day diis dem rek yaa ngi ko ñaanalee mu ngi nii cinq étages la laal moo tiim gay ne Fatma ñëw. non bala nga ci El Hadj El Hadj dama ne parcelle unité 10. li ma wax nii daf ma ñor dama ne. ay joueurs international sénégalais war nañ fee mën a génn parce que unité 10 dañoo yàgg mën football. loolu laa wax. dama ne la kër bu gi rek mais dama ne la unité 10 Fatim Fatim Ndiaye jëkkëram rek génn fépp doon na takk capitaine équipe nationale bi sëgër mooy Ibrahima Balde hmm. moo doon tent kenn du moom hmm. moom lépp lay gée polyvalent la yaa ngi hmm. di géaat jabaram parce que Fatim moom day togg si kii nan lañ koy waxee booli yàq si mbana xaw ma nu ñu koy waxee parce que loxo baa barkeel ba pare côté liggéey jàq bi côté liggéey jàq bi moom da see jàpp waaw mooy ñoom ñooy raxas morgue bi ñooy defar lépp te am na ñoo xam ne ñeme wuñ dee yaa ngi comprendre ku si mel ni ñang baalo ñoom des fois ñoom ñooy noddu xam nga li ma la parce que paa bi fi moo noddu day ku noddu góor dañuy gaaw a wàññeeku léegi moom moo dem jël risque noddu bi moom mooy noddu léegi si koñ bi waaw ay ñoom maa asu mhm. maa ñoom ay magu la lañu mhm. mooy sama sponsor sama magu sponsor caat yaa ngi comprendre waaw kay di nuyu sa combat bi war na cee tax rib waaw kii maa moom dëkk kii dama nekk damay nekk Maroc mu dëgër sax mu jël mooy nam di ma jox mook buujaa ñoom nabu waaw sama GP yooyu nañ ciy jàpp bu baax a baax a baax yaa ngi ñoom Papa Ndiaye waaw au moins problème connexion mu dugalal ma mais maa ngi nuyu sama papa El Hadj Diouf waaw Diouf ñoo ko bàyyi moom nag suñu jaam la parce que kii Diouf séeréer la ñun ay pël lañu kon ñun dèjà ñun ñooy buuram n'est-ce kon kii ñun lu ko ne. li ñu ne waa parcelle jox ko cër. parce que ñu ngi koy saaga mu ngi dégg lu nekk. ñu ngi koy wax lu nekk ndax parcelle. xam nga li ma laa te moom dëkkul parcelle moom dolli la. daa ñëw quartier bi neex rek mu toog moom dolli la dañ ko dolli si quartier bi. ba pare muy xeex li mu mun si quartier bi amul kenn ko mun day kaasal Modou Lo kaasal Modou yëpp moom daa fidèle si Mansour Ba rek la yam mooy waa jàmbaar da bëgg waa parcelle jox ko cër respecté ko waaw. ñu fa jox ko waa di la sant seen waaci waay waaw naan rek ban sit la eh, waaw sunu làmb maa ngi leen di mhm. jox seen waaci waay naan Sénégal axlu làmb yëpp maa ngi di caar ak képp kuy bëggee lamb mhm. di sant Mansour Ba le promoteur des promoteurs mhm. di sant Modou Xarañ Lo le roi de tous les temps mais Alpha nag da ngaa juum li ngi ne interdit doole laa fi maa fi bokk yem parce que sa papa parce que sa papa fi am 15 sur 10 sama maam am fi 15 sur 10 tu es sous couvert de ton père je couvert de mon grand-père comprendre nga waaw kon ëppale fi dara foofu waaw foofu da ngaa juum c'est que damaa mujjee fël luñ naan liñ a yéeme te fu ma jaadee ci koñ yi gars yi woo ma yuuxu ma fu ma jaadee ci koñ yi gars yi woo ma yuuxu ma ay Diouf Diouf non yaag Alpha boo leen àndoon foo leen romb ñu ne El Hadj Diouf moom gars yi xam non loolu mu lépp sax du man ko waa comprendre maa yëpp benn loolu lépp yaaram dama koy sante yaaram bi yaaram bi rek mm-hmm. parce que boo yàlla la quoi fii kenn mënul dara yàlla mën lépp li may wax gars rek il faut avoir toujours ce qu'on appelle la croyance divine de Dieu waaw. comme. il parle français toi tu parles pas français. non li moom dama ne la waa bi da ko war a delloo jugal. kii fii la dëkk kii kër maamam fii la ne. caatu Linguère lay représenté ak Jaxaay. xaaral caatu Linguère. maag papam ñoo bokk ndey ak waay. papam sama doom la. yow papam caatu lingéen bu jaxaay sama doom la waaw parce que papam ki jur papam ak ki jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay kon papam sama mag la mais kii dama koy ruubee tey boo gisee ma gën a sax ne damay géemaat ak yooyu noonu moom dama ñëw mu tegal ma lu métti non dof la moom nu ko neex lay géemee ñëw géem saaga la si koñ bi nii ne dama la entraîné bi gisuma mu entraîné ñëwul sax day wala su ma yorul saag daf may saaga daf may ne entraîné wala li ma laaj yow sa yaram dagul suuf dama koy ruubee kii gaar yi dañ ko war a jox cër sa maama ëppal sa maama mu fi ëppale sama papa waa léegi continué waxal loolu jarul. hélas waxal waxal xam nga nag dafa commencé woon salu mais delloo nga ko place waaw mais waxal rek. interdis li ma wax rek interdis interdis c'est l'état waaw des parcelles nag interdis c'est l'état des parcelles Qu'est-ce que ça veut dire Beaucoup de déggee moi, hmm. 10 y a ce qu'on appelle l'académie du foot. l'académie du foot. la Pléiade immortelle. ici au des Assainies. oui ici à l'unité 10. comme hmm, des jours, comme leur grand frère Ibrahim Baldé l'ancien joueur hmm. de Pas masse de POFC FC deuxième division Dairou bientôt il est revenu à Girona pour faire son euh, euh, oui, pour faire son test, n'est-ce pas okay. tu sais, euh, le petit âme de girafe, tu sais, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le roi des arènes qui habite ici à l'unité 10, qui est inné à l'unité 10 aussi, mhm, mhm. qui est le roi incontestable, incontestable le roi technique et tactique, le lutteur qui lutte

noonu la demee comprendre ah, moo waral ma ne am nga problème non non waaw waaw waaw loolu dinañ ci ñëwaat Siteu moom tarkindaa bi kooku lijjantiwul ay looloo yooyu noonu lijjantu yee eh, eh, eh, sa waay dafa ndànk rek sa waay jàmm gën ngeen dugg dafa ndànk dafa maa ñëw maa ñëw uma uma jàmm la Pikine dëkk la te dama leen mëdd parcelle la la dëgg ma de parcelle la la parcelle la parcelle dëgg ma de parce que continent la dëgg ma de dëgg ma parce que continent la Pikine dëkk la Diamaguène cité la dëgg may déglu rek parce que continent la laa la wax Diamaguène jóg ma fi eh dëgg may déglu rek parce que moo leen continent dafa am fu ma ko teg fii Sénégal ba mu daj arène nationale ba mu daj ban mbër moo fi dem ba églan téye flamboyant bi c'est le seul Modou Lo le roi des arènes maa ngi ñëw Alpha ñëwoon. zoolom zoolympique flamme bi de. waaw gis naa ko Modou Kese moom mos a téye flamme bi waaw. flamme zoolympique. waaw jeux olympiques 2000 la la woon 2000 la la woon 12. Euh, 2012 waaw 2012 la woon waaw si Afrique nag waa Afrique daj. waaw kay noonu la demee. noonu la fa demee waaw moo tax léegi ñun. jaratul ñu bëri non parce que ñun kenn laamin la yor wuy ma comme ñun xalima coow la ñu bindee ñun coow sonaluñu mbëri nañ ma jël doof bi bëree yaa ngi comprendre parce que tamit booy joxe weccet beeg réer bi dafa métti de barki alxuraan gis nga instant bi dama dama jeexal nii sama kóol mu ngi doon sone daa am ku ma war a jaay sama benn machine pour toog barki Seydina Muhammad yaa ngi comprendre na ma mbëri jël ma géem leen maa leen mun fuuf maa ngi doon doof El Hadj Diouf lan ngay tàggatoo en attendant beneen jour ma ñëw ñu toog maa ak yow xam nga tey Alpha moom moo déplacé woon mais beneen jour damay ñëw ñu toog xam na yow man sa buur laa yow sama jaam nga yow juuf nga sant man jaalaa sant man pël laa ngay séeréer te dañ ne séeréer jaamu tukulóor euh, lan ngay tàggatoo ñu waaj yaa li tàggatoo mooy Sénégal wër nga képp maa li char leen na gars yi mbëri nañu seen biir parce que ñoo war a may mayante xaalis na ma ne gars yi booy mbëri dëkk Pikine nag ay jaama gën feneen dañoo ragal booy parcelles yi ñu su mel ni ay alpha dama lay bëgg xamal xoolal ay Mor Yekini onze combat dëgg onze combat musul daanu yaa ngi dégg waaw yaa ngi dégg ay dur saala bi baax na baax na ko mu jëru Modou Yékini yaa ngi dégg ay Zulo mu ngi fi ay say jàmbaar mu ngi fi ay boy yu mën a nañu nangul de ay Petit Lo ay ñang baalo ay talfa nee naa la xool lamb du biir doy wasin nee naa la lamb du lamb Euh, lamb lu biir réew wasin nañu nangu instant yii parcelle moo ëpp vent ah, waaw parcelle sec seul amul leneen. dinaa ñëwaat ñu yaatal dinaa ñëwaat ñu yaatal. Alpha looy tëjee looy looy tëjee. waaw non non wax foofu waa kaay kaay kaay sponsor officiel bi seen sponsor officiel bi Tis Cérami. waaw di wax waa Tis Cérami rek muy ñoo xam ne tey seen kër la place bi ne mu ay jigéen yoo xam ne rek. li ñaan ñaari loxo yi takk tubay mooy takk sër ñaan bañ naa bañ naa du ma femme objet damay waar ñax jariñu ñax teeg xaalis jéemal noo ko amee waaye da ci sàmm songo ndax mu tene muy des jeunes filles de bonne famille que l'exemple de leur comportement assure et rassure avec tiis serem dama ne parcelle interdise la lépp firee xewee ak tiis serem kan la caatu yàlla bi ñaari seexu yàlla yi sek sec amul leneen rafet na ayca El Hadj rafet na rafet na mon frère rafet na rafet na alfa Alpha lan ngay tëjee lan ngay tëjee ñu waajal ànd comme Diouf li mu wax si tiis seran bi rek waaw ñun dañ leen di sant parce que tamit ñoom doxuñu ba seen tës jeex ñoom yoruñu ngaami muus yoruñu ngaami kaña liggéey lañu xam xam nga li ma la te temps bi ndaw na bu la neexee nga dund la neex bu la neexee nga dund milieu xam nga li ma la mais ñu ngi ñëw di liggéey di defar seen tiset di ko jox gars yi pour gars yi nag gars yi ñëw jënd yii dafa rafet te lii Sénégal lañ koy defee yaa ngi comprendre tiset yaay nii pour pour ma woon ko gars yi yow boo ñibbi la jox yaa ngi comprendre mais mais numéro numéro commercial bi Tisserand bi boutique bi numéro bi son non caat foog mu jege si caat la nga war a jege si nga joxe numéro bi non caat non numéro bi xaar mu génnee ko mais exemple na ñëw gars yi ñëw jàpp si mu ngi parcelle parcel la nekk inte 10 ko ñëw murloo te fonzu su Modou Lo yi ñëpp ñëw jàpp si yaa ngi comprendre Fonzu su Modou yi am ay ensemble amna lepp ay lakosu lepp ay yere kilifa ak yere xale ak lépp am fi na gaay ñew xol di seet yoy non. numéro bi ñaata. 77 waaw. 592. 592. 39. 39. 63. 63. na gaa yëpp bi. waaw. Nga commander rek. non numéro bi boo wootee yow commandé nga sa commande. livreur am nañ lépp gars yi jaay affaire yi new dematuñ ba ay Koupentoum wala Koussanar di jënd yére ñun léegi lépp fii lañ koy jëndee tiseet yaa ngi nii rafet li desetu nante la yaa ngi comprendre na gars yi ñëw surtout waa parcelles yi nañ ñëw jàpp si yaa na gars yëpp ñëw jàpp si noonu li may tëjee di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp rawatina mafia wu 442 bi présidente bi Anta Anta Gningue mooy sama président de fans club waaw moom mooy sama président de fans club waaw di sant ñëpp waaw waa Galle sama waa famille sama copain yi may àndal sama booy ñoom Fatim Abou sama ancien ménageur ay Lamine Faye xam di ziar ñëpp waa bool de fi waaw di nuyuwaale sama doom la na ko gars yi jox combat mu waaw na ko gars yi ndaanaan la champion la na ko gars yi jox combat ay fils de liiru bëri naag ñëpp ay ndaanaan la bëreel na ko gars yi jox mu bëree ja jaxaay la dëkk mais man maa ngi parcelle déedéet moom yàlla xam nga non déggoo rawatina ma fi affaire bi laa la wax benn affaire dof la non sama kopp maa ngi woo son bu télécom waaw ba tey laajaguma ko jees mais bu combat ñëwee na ba jees waaw ay Assane Fall global désir xamal ma ama bool non parce que gars yi gars yi fu ma woo leen saa yi parce que instant bi kër bukki la de waaw di cérami ñoom laay njëkk a tamit parce que ñun ñoom ñoo ñoom ñooy lépp parce que yi may sol ku dugg sama TikTok boo gisee yére yi rafet yi may sol yëpp si ñoom laa ko jëlee yaa ngi comprendre mhm. ak salon daba sama benn xarit bu nekk Maroc daba titi waaw sama xarit la daba loo waaw sama xarit la bu nekk Maroc raba ak Asu Njaay waaw surtout Albouri boobu noonu maa ngi koy ziar xam nga di ko ziar bu baax ak waa Timéra solidarité non na la ñuy bës jees ñooñu la ñuy bës jees ak waa Timéra solidarité mooy fi ma nekkoon di di jiital prési bi parce que sénégalais yi bu ñëwee Maroc tey amuñu liggéey waaw bu sénégalais yi amee liggéey ñëwee amuñu liggéey wala amu fi ne président Ousmane da leen di téye wutal leen ne defal teg leen si jàmm ay grand Omar gars yi xam nga ay Matar Matar ko ñu doole Matar te Mara maa ngi koy ziar bu baax la ak Fall Paradise mooy Assane Fall Fall Paradise moo nekk en face sapeur bi ay verre lay jaay waaw des fois nga dem nit di la jaay verre ndekete ver yi mu la jaay baaxul ay veeru Kenya la xaw ma moom origine non ndekete gars yi ñuy jaay dara baaxu si boo xoolee man samay vidéo veer yi may sol yëpp si moom laa ko jëlee yaa ngi ak Ahmed Anne ak Ron ñaari doomu Penda Naari ak Bàcci Touré ñooñu samay longoo lañ ak waaw waaw waaw maa ngi ziar waa Boldo waa Kalsi waa Doole waa Namaat yaa ngi waa Indosin waa samay grand yi baa ñoo fa nekk waa Bundes Assane Fall global de sooy bu télécom ASC bi Maroc mooy ñoom cal gi mhm. Mbay Caam ay ñoom um si Ibrahima ay Abdou Mbacke maam Jeewo Issa gars yëpp maa leen ziar waaw parce que gars yi des fois barke yàlla gars yi des fois dañuy jël seen muun yi di ma ko yóndee te bu leen ne booy baa ngi fii nii ñëw na temps te ñoom dañoo yor famille man mais nii nii deux mois rek laa fi de mais booy dañuy jël seen muun di ma ko jox yaa ngi ay vula gars yëpp ay grand Omar grand Assane Ndey Penda ummi mbayang sama yaay ami dia nu mu aram pari ay ñom nabu ñom ñëpp ma ngi leen di ziar yaay comprendre di bege ñëpp ak wa atar fi mo don salif ela Hadj Mar Fabis Lamine Seydi Ousseynou babu ak Daba Seydi Ousseynou ma ngi ziar ñëpp di bege ñëpp ak elage Pogba ak ñom elage ñom Pogba ñom ñëpp ma ngi leen ziar di bëggee ñëpp instant yi maa ngi xaar bis te bu ma amee combat nañ xam ne dof bi am na combat. acca sama gars yi mi ngi noonu l' émission tire à sa fin tey ñoo ngi woon fii ci parcelle unité 10 seen émission lamb rek bëree kese le retour de Alpha 2. Ibulaay Ibulaay maa ngi koy woo. waaw na ñëw jàpp si man frère am laa. na ñëw jàpp si moom sama waay la moom du ma si moom. waaw sama waay la te sama mag bu baax la sama longoo la journée yii lay taxawal dama see war a bëri. dama jox ma bëre xam li ma la parce que gars ñu may xaar sëy naa lu garaaw laa lay wax non euh, déggoo promoteur bu ci bëgg laax boo may tëggal làmb ñu dem ba tribunal signé ndax kii na mobiliser wala du mobiliser aduna lépp pexe la waaw Ibrahima maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ay Badiane production ay Ousseynou Laay moom tamit sama frère la Ousseynou Laay sama xarit yaa ngi comprendre ay Fouta bu Grand F ak waa Qatar waaw mooy waa Albourakh waa Qatar waa jàmbaar tamit maa ngi leen di ziar baa Ba di daal waaw na ñëpp am jàmm. aja sama gars yi mi ngi noonu kon seen émission lamb rek bëre kese le retour de Alpha leen ko bu baax a baax a baax que mbëri yéen lay waxal ah, nee na mi ngi ñëw dal seen kaw adversaire yi. Alpha mbër nee na mi ngi ñëw dal seen kaw waajal leen bu yi dama leen di lancer appel da ñëw di ko seet si di ko jox ay combat muy dugg ci lamb ji di bëre di wane boppam sama gars lii la woon fii la woon ci Parcelles Unité seen émission lamb rek bëre kese avec Alpha 2 ma leen di joxaat di daje ba beneen yoon ziar ziarat jangeen di sama gars yi aca pulob alejo caatu lingeer mi ngi noonu